lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe parce que xam nañ ne xol bi buy fonctionner faaw mu jaar ci biir neer yi te bu jaaree ci neer yi bu yëngatoo ci loxo bi nga xam ne kooku mi ngi dund ba léegi loolu jumtuwaay la bu ñu doon jëfandikoo dem nañ ba médecin yi mën nañoo weesu loolu même suñ ko degoon ci ay appareil réanimation bi di dawal xol bi deret yi di daw boo làmbee yëg muy yëngu mën nañoo am xam-xam boo xam ne xam nañ ne kii moom dundatut kon dañuy wax ne ngir àtte ne nit ki mi ngi dund wala dundul nañ ko delloo médecin bi su fekkee fu ab médecin am la su fekkee fu mu amul la nag ñu jëfandikoo jumtuwaay yi doon jëfandikoo bu njëkk mooy làmb ba xam xol baa ngi fonctionné wala déet su fekkee làmb nañ ko ci am na nag ay mag ñu ci am expérience yu doy waar sax bu ñu ko laalee rek mën nañ laa wax ne kii dundatul wala mi ngi dund su ko defee bu boobaa day doom yomba xam lool ki nga jël doggali ko sàng ko yóbbu ko sang ko ba mu set def yi ngay def yëpp dara yënguwul kooku moom xam nga ne kii nag faatu na wala boog lu gën a bari te àtte yi dañ koy teg ci li gën a bari waaye duñ ko teg ci li gën a néew ndax dagan nañu jële ab cër ci ab jullit yóbbu ko ci keneen gëstu boobu ci borom xam-xam yi gëstu gëstu bu xóot ci la bokk am na yoo xam ne mënee satu cee àtte ci loolu ci jullit ak lu dul jullit maye deret tey foo dem fu nekk mbuus yooyu yi nga xam ne moom la ñuy maye ku ko aajowoo ku nekk dañ lay defal muy ab jullit muy ab muy leneen te nag suñu borom tabaraka wa taala dafa nekk xakiim ndax su fekkoon ne dafa am lu muy jagleel kenn kon day wut deret yoo xam ne lii mooy dereti jullit lii mooy dereti yéefar waaye defu ko deret ji ñëpp a ko bokk muy góor muy jigéen muy nit ku xonq muy nit ku ñuul muy ab jullit muy ab yéefar ñëpp koo ci defal deret ji mu dem dund kon ñi xam ne nag loolu noonu mu tëddee noonu sooy boo ñu bàyyil ko suñu borom tabaraka wa taala noonu rein bi amul rein boo xam ne bii bu jigéen la bii bu góor la amul rein boo xam ne lii rein tubaab la lii rein la rein jullit reya bu dul boobu jullit kon mbir yu mel noonu borom xam-xam yi li ñu ci àttee mooy su fekkee ne nit ki nekk na foo xam ne toll na ci danger ci ak dundam nit ki rek la wax dagan na ci ab jullit bi ko bëgg a xett li mu xett li ko may ko deret wala mu may ko ab rein wala cër boo xam ne xam na ne bii mën na ko koo may te tee muy dund même su dul woon ab jullit mu may ko loola doonut loo xam ne luy wàññi dara la loolu mooy li borom xam-xam yi mujj notal ci bunt boobu loolu nag day wane yaatu ci ne borom bi tabaraka wa taala bi muy wax ne wa man axyaaha fa ka annama axya naasa an kooku bakkan rek la wax ki dundal bakkan nee na mel na ni ku dundal nit ñëpp sa tuyaaba tool na noonu bakkan boobu nag su fekkee ne xayawaan sax nit day tàbbi àjjana ci ab xaj boo xam ne dafa mar nga may ko ndox mu naan nit tàbbi ci àjjana kon doomu aadama ji doon bëgg a dee nga fexe ba deewut loola moom taxul ñuy wax waaw léegi dafa des euh, waaw tomb bu am solo sax la euh, Cheikh Sidi junj mooy yéefar bi nga xam ne dafa taxaw di xeex ak jullit yi kooku nekkul euh, maasumu dam kooku ak faatoo ma ku dundam yoonu lislaam nekku ci su ma nee mu faatu sax day faatu kooku kenn du ko may kenn du ko xettali moo ki nekk ab jullit sax ñu àtte ko ba ni kii dañ koo war a rey ñoo àtte ñoo yem ndax nekkatul maasumu dam mooy deretam lislaam ñoŋalatu ko ki lislaam waxul ne deretam ñoŋ na nag kooku du ñëw di ko xeetali ngir mu dund parce que kooku faatu na ba noppi lislaam àtte na ne mën naa faatu ki ñu àtte ne <coughs> dañ ko war a rey tey kooku du ñëw ne dañuy dajale deret pour defal koo ci yaram parce que amatul benn njariñ dañ koy rey ki nga xam ne dafa nekk ab yéefar bu jaamaarloo jullit yi di xeex ak ñoom ñu nekk ci biir guerre kooku duñu wax ne jullit yi nañ jël seeni rey di ko ko may déedéet kooku moom suñ ko mënee rey sax dañ koy rey kon euh, kooku taxul ñuy wax su fekkee ne nit ki moom dafa ne man sama cër buñ ko jox kenn ci sama dund ak sama dee ndénkaanam loolu nga xam ne wax na ko bind ko seedeel ko day nekk waajib obligatoire la ci ña fa nekk gannaawam ñu wéyal ko kenn sañu dindi ak cër ci moom di ko may kenn ku ko def ko mën a doon am nga ca bàkkaar ku ko def am nga ca bàkkaar su fekkee nit ki mooy laaj bi mu jëñëw léegi ci yiñ mujj bind fii su fekkee ne dafa dañ ko doon mayu cër moom dañ doon dindee ci moom ab cër di ko yóbbu ci keneen far mu faatu ci ah loolu bu ñu xam ne dogalu yàlla moo ñëw diil jël toor wa di ko teg kenn li am solo mooy ñañ koy def loo na doon ñu ko xam na doon médecin yoo xam ne ay spécialiste lañ ci fànn gii xam nañ ne bu dee rein xam nañ nan lañ koy jële <coughs> jële ci nit ki ñu koy bëgg a jële ci moom xam nañ yan analyse la ñuy def ci moom ak yan ba ne kii mën nañoo jël ci moom rein ki ñu koy bëgg a defal itam xam nañ nan la ñuy def ba yóbbul ko suñ defee liñ man lépp nag doon ko génnee ci kii di ko yóbbu ci kee far ki ñu ko jox dund ki ñu ko jële woon ci moom faatu ñoo xam ne dogalu suñu borom tabaaraka wa taala moo ñëw lislaam moom noonu lay xalaati ci wet googu leneen la ca des nag mooy wàllu diggante médecin bay liggéey ak wàllu yoon nag ci wàllu dëkkam ñoom ñooy gëstu xool ndax lii mu def nii càggante la wala du càggante ak yan sanction lañ koy teg su fekkee càggante moo tax mu def ko waaye lislaam moom li muy xalaate mooy ci ginnaaw daal am na compétence bi te ñëpp d'accord nañ ci mu def loolu <coughs> jamono yi mu koy def mu def ko ba pare loolu juddoo ca lislaam day wax na dogalu yàlla ñëw na wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin xam naa di sant bu baax a baax a baax rek commission sociale ci xarakatul falaax ci initiative bu am solo bii di <coughs> sant imam Babacar Sall itam ci invitation bi di jégalu ci yàggee ñëw dañoo xëyoon nekk ci ab liggéey boo xam ne moo ñu xaw gàllankoor

doo sàkku ngaramam yonen sa soppe